Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ak Alioune Ndiaye président Assemblée nationale yéen i di nga xamal ne def loo wax loo boo tëddee nelaw amul caaxaan te seen i ak jàmm. li gën a fës yéenekaay yi Barthélémy Dias bala maire bu Ndakaaru jëmal jëmi si xolu lëndëm te bés dugul la ko waral mooy député ba mu nekkoon niki démb daan nañ ko fa tëbale dàqe ko fa gannaaw ministre de la justice ba mu bindee Almari Ndiaye ko kii di Barthélémy Dias wóote mën a nekk député saa sàmm sonal ndaxte mbiri Ndiaga Diouf dañ ko faa daanoon juróom benn weeri kasu yoo xam ne da ko tëdd ak alamaan bi dañuy xamal ne sukkandiku nañ si yooyu règlement ba tax niki démb nekk kii di Almari Ndiaye daan ne kii di Barthélémy Dias mënut a nekk député saa sàmm sonal yéeni kab yi ñu xamal ne fa mu ko teg mooy article 61 ak article 51 moo daal di tëbal kii di Barthélémy Dias xamal ne ko mënut a nekk député foofu assemblée nationale yéeni kab yi ñu xamal ne Babacar Ba nag moom lam xamal mooy kii di Barthélémy Dias yoon dafa def yoonam ndaxte kat article 61 ak article 51 ñoo xamal ne kii di Barthélémy Dias lan koo daanoon si mbiru Diaga Diouf gannaaw faat bakkan nga xam ne faatoon na ko yéeni kab yi ñu xamal ne mbir mi mbiru politique la gannaaw buñ sukkandikoo si kii Abdoul Mbow neen daal mbir mi mbiru politique la ak jaay doole Abdoul xafatun yaa fi nekkoon te atit gi booba yaa ko sampoon yéeni kab di ñu xamal ne ayib daaf ne moom neen daal rafal na bii dogal ndaxte ke lii day wane ne yoon daal ni am si réew mi ma Diouf ni ki démb doon a jàkkaar taskati xibaar yi di indi ay leeral huit mois yi nga xam ne yoon na ko njàng mi ak njàngale mi dem na ba xamal ne Anaïs Assane Seck ba Sikansool ay waxtaan dana amal ñun feex ba ubbi ba étudiants yi delluwaat si seen daara ya yéeni xamal ne Abdoulaye Sow ne kan na ko si biir réew mi te moom nag gannaaw bi mu siiwale ay xibaar yu wéru ni ki démb nekk yoon daal ne ko seetal bu bàyyi ko mu ñibbi këram moo tax Adama Gueye nee na alhamdulilahi rabil alamina wax loolu suñu réew ni ki tey si samedi gi la ko passé daal daal di ootee si dëkkab sel ba sa Tuubaa nag ni daal di tàmbali carte bi ñuy wax ngiraaneel tàmbali ñu seetal seen i gox seetal seen i canal Colombia nekk sa Algérie ab doomu Sénégal bu ñu fa faatoon seeni mbokk woy di ko jooy di wax ne président bi nag la mu bëgg mooy mu daal di leer naññi ndax sa sixième terrasse la ñu wax ne falank ba maxee xarawul deful dara ay mbokkam ne xarawul deful dara dañ ko ba max sa sixième terrasse mu daal di daanu tagal yaram suñ gaynee handball ya dem nañ final niki demul ndad dul arsiri dal jall si final ba wolfa Fadjri ak Angola mu nek final bo xam tay jël jii koy xaase samedi gi bu 19 jotté mu nek final bu naay métti si ñaari côté yépp ndax Sénégal dafa bëgg jël ramas ci kawam diggante moom ki xam moy Angola yéen kaab li ñi xamal ni ñett pennar yi nek jub ak jubal ak jubanti lañ oté moy président basirou Diomaye Diakhar Usman ak premier ministre Ousmane Sonko ak Almania président Assemblée nationale kaab li ñi xamal ni def loo man wax loo man boo amu nelaw amul caaxaan te seeni liggéey dañ ko gëm te dañ leen a yónni yàkkamti leen kon yendoog jàmm